sim Euh, dañuy jël le diplomate de carrière dañuy jël ku mel ni Boubacar Seye koo xam ni du politicien la ñu nommé ko vice consul wala consul teg ko ci kaw diplomate de carrière bi donc dafay créer des dysfonctionnements donc il faudra muy ay jafe-jafe mais peut peut-être loolu euh, xëy na ñoom Mouhamed dinañ ci ñëwaat mais sànq da nga tudd passeport ñu am fi loo xamante ne également dafa def actualité puisque bu ñu waxee passeport tey Sénégal euh, jamono ji ñëpp xel yi day dem ci passeport ne tudd ñoo xamante ne ancien ambassadeur di ci tudd ay joueur ancien di ci tudd ay kilifa. Mm. Euh, ñuy wax sax ne ki ñu ci teewoon euh, yëkkati na kàddu wax ne euh, ñoom dañu doon def seen liggéey ci diggante présidence de la république ak le ministère des affaires étrangères tey naka nga gisee loolu en tant que peut-être jiite Horizon sans frontières di dem ak di ñëw ci dëkk yi déjà image du Sénégal par rapport à ce scandale mais naka nga ko gisee ban analyse nga ci retrouver euh, problématique bi ñu posé woon sur cette économie souterraine et criminelle sur les migrations internationales tey ça pose la problématique de la mobilité que malheureusement faille boobu moo parce que les institutions et politiques publiques n'ont pas pris cette dimension migratoire là ba mu indi tey coow li euh, mais ce qui se passe est, grave parce que ça nous interpelle tous parce que il y va de la crédibilité de notre pays et même de notre appareil judiciaire parce que tey dañu dem ba nga xam ni fépp la laal et ci li mu laal les institutions étatiques le Sénégal dañ koy def liste rouge si vous vous rappelez en deux mille euh, il y a deux ans cela mm. on avait interpellé le Sénégal parce que euh, l'Europe dañu jaaxle ku wàcc rek passeport diplomatique nga yore mm-hmm. mu jaaxal leen ba ñu indi prêt kon lii ñëwaat mm. donc il est bon et il y va de l'intérêt de notre pays parce que c'est un grand pays il ne faut il faut pas qu'on renonce à notre grandeur mm-hmm. que ñu leeral ko euh, tey dafa leer ni boo dégloo kii jox nañ ko lii ci xaalis donc il y une économie souterraine et criminelle mm. donc cette chaîne de corruption la il faut démanteler ça tout de suite mm. par une enquête mm-hmm. euh, dafa am lu ma bëgg a leeral mm-hmm. euh, il est bon aussi que ñu xam ni en matière de délivrance de passeport diplomatique l'État du Sénégal est souverain ku ko neex lay jox passeport loolu moom dafa leer bien que am na la convention de de de Vienne de 1961 sur les immunités diplomatiques et autres yooyu yëpp dafa leer maintenant fii faay bi am mooy sur la délivrance dañu bàyyi les règles orthodoxes les critères orthodoxes la ñu bàyyi ba nga xam ni tey loolu moo indi des élargissements à d'autres familles mu indi une surproduction et une surexploitation de ce dossier-là. Parce que tey soo xoolee quelle est la finalité d'un passeport diplomatique c'est d'assurer tout simplement la fluidité des actions de l'État dans les relations internationales. c'est clair. fépp ku yore passeport diplomatique mooy da nga yore une mission étatique foofu nag fi problème bi ñëwee dañ ko waroon contrôler parce que soo ko xasee ba yor mën nga def lu la neex au nom du Sénégal. c'est là que lii dañu dañu ne dafa dafa amoon avant peut-être 2012 le président Macky Sall bi mu ñëwee li mu njëkk a wax mooy passeport diplomatique yi duñu ko joxe anam anam gu gu nekk am na ci ñoo xamante ne ci nitu diine amoon nañu ko dañu ko dog ci ñoom ñeneen ñi kër maanaam ci yeneen yeneen institution amoon nañu ko anam bi ñu gën ko corsé mais tey lan moo tax muy continuer di di am ba tey ci sa jàngat ci wàllu dem ak dikk bi par rapport ak diaspora bi mu nekk problème boo xam ne régime yi fi jot a jaar yëpp dañuy am jafe-jafe boobu ci ay passeport diplomatique scandale yi ñu dégg. parce que règle orthodoxe yi wax naa léegi lan mooy quelle la mission d'un passeport que ko la passe un passeport diplomatique ki ko yore mooy mission état lay dox. Mm-hmm. mission état lay dox c'est de faciliter les les actions de l'état di engager la responsabilité également de l'État du mais Sénégal. absolument mais entre-temps comme ni mu ko waxee il y a eu des élargissements hmm. député am na ko ñu ne jabaru député ak ñeneen ak ñeneen parce que du aussi il faut rappeler que du du diplomate rek la war a jox tey su ma leeree ni monsieur Coly monsieur Sissoko euh, dama ko jox benn mission boo xam ne ça part dans l'intérêt du Sénégal hmm. dañ ko ko jox tout à fait jox nañ ko ay footballeur jox nañ ko ñeneen moo tax man la sur ce mais encadré ko d'accord les critères d'obtention la ñu encadré ba moo indi surproduction bi. d'accord alors bu immigration euh, clandestine dafa laale ak mbirum napp. ndax euh, bu ñu defee ay jàngat ay études gis nañu ni ñu bëri ñuy euh, yëngu ci mbirum yóbbu gaal yi mm-hmm. ay mool lañ ay nappkat lañ parce que dañu dem ba ci biir peut-être gisatuñu jën ñu choisir jël seen gaal di yóbbu ay nit bitim réew. alors ñu dégg président république semaine bi ñu génn mu wax ne diggante Sénégal ak Mauritanie. Mm-hmm. gaz bi fa nekk. Mm-hmm. dinañ ko partager ci partager bu jaar yoon donte am na ay loi ñu mais ci jamono joo xam ne yenn nappkat yi nekkee côté boobu ñoom déjà ba léegi xamuñu fan la ñu féete. Mm-hmm. Euh, ci wàllum partage boobu nga xam ne ñoom itam dañu bokk te amuñu lu dul yaakaar lu dul géej gi. xam nga. cette question de gaz pétrole ak li génn yëpp Sénégal dafa laaj un débat un grand débat de fond parce que la question est géopolitique géostratégique et géoéconomique aujourd'hui toute l'économie du Sénégal devrait aujourd'hui tourner autour de ça pour que ëllëg ñu mën a xeex contre l'extrême pauvreté bi nga xam ne tey moo nekk Sénégal parce que xam nga li tax Euh, gis nga le pétrole et le gaz font l'objet de beaucoup de à travers le monde moo tax leur leur gis nga fu mu génn rek mm. euh, da nga war a légiférer wane fulla mm-hmm. euh, gis nga vous avez parlé de de la pêche dinaa ci dugg léegi mm. gis nga tey boo xoolee les deux tiers des conflits dans le monde mm. mu ngi am ci dëkk yi nga xam ne yooyu dafa génn. mais dàq na loolu tamit. <laughs> ci ci si sorteem bi nee na fii bu fi kenn wax waxu malédiction du pétrole. Euh. donc fii moom vraiment. Mhm. amul benn problème ndax ñaar dëkk ñoo ko séq mais da nga soulever beneen problème muy problème géopolitique. dafal nang moi je vais kenn da kenn ñaanul yàlla dara amu fi. Euh. mais euh, il faut qu'on pose. le débat il faut anticiper. Mm. il faut alerter. Mm. dama wax ni du dañ les deux tiers des conflits à travers tey mu ngi jóge ci dëkk yooyu. ma yokk ci ni l'Occident a un modèle économique énergivore. les États-Unis les États-Unis ñoom seen bopp rek li ñuy lekk rek c'est vingt cinq pour cent de la production mondiale Europe nee nañ vingt et un pour cent de la production mondiale euh, Afrique gisoo courant ndox di fi ñàkk ci trois pour cent la ñu a un problème quand même léegi euh, gis nga ma jox la exemple ci Nigéria en deux mille cinq le Nigéria était combien moo doon premier producteur mondial onzième mm-hmm. premier producteur en Afrique onzième ci monde bi mm-hmm. Nigéria daal na ngàcc deux virgule quatre millions de barils par jour loolu indil na en deux mille cinq le gouvernement central trente sept virgule sept milliards de dollars quatre vingt cinq cent de l'exportation tey soo demee Nigéria ay conflit fa am Boko Haram boo demee Nigéria tey les soixante pour cent vivent sous le seuil de la pauvreté xam nga li tax parce que dañu dañu dañu dañu anticiper wu loon gis nga euh, exploitation pétrole et gaz euh, pour ñëw ci pêcheurs yi fu mu am dafay am des déversements qui entraînent une disparition de l'écosystème et de la biodiversité gis nga en en en entre mille en mille entre mille neuf cent soixante-seize le PNUD avait parlé de 6800 déversements à travers le monde. Mhm. gisoo da ngay am ay kii yu toj fu mu kii rek day yàq la fa nekk. d'accord foofu kenn dootu fa mën a def dara. gis nga ci pêcheurs yi bu fekkente ne jëluñu ay matuwaay.